mbokk yeeg xarit mbokk yeeg xarit yi nga xamee ne ñoo faral di seetaan tey déglu seen télévision Tactic Info ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen wax salaamaaleykum tey nag seen émission du dëgg du yoon daf leen indil mbir bi nga xamee ni mu ngi xewee Hann Maristes benn soxna buñ naan euh, Aïda Mbacke moom moo taaloon jëkkër ji Xaadim Njaay ba kooku mujjee si jëlee faatu soxna si nag euh, déglu nañ ko fan yi passé si section de recherche gendarmerie ndax loolu moom moo yees si mbir bi gannaaw bi docteur bi nga xam ne moo doon ko faj da doon ko jéem a wutal ay kayitu dof pour que gendarmerie bañ ko déglu d'ailleurs sax euh, nee nañu gendarmerie déglu na docteur bi moom si procès verbal pour mu dëggal ni effectivement ndaw si dafa ànduloon ak ak sagoom donc li yees mbir bi moom mooy Aïda Mbacké boobu waaye section de recherche ñëw nañ ko jël si sa clinique bi ba yóbbu ko seeni bureau buñ ko déglu woon nag ndaw si def ne moom benn xaritam moom moo ko woo bi mu ko woowee téléphone ne ko sa jëkkër kat wutal na la wujju te wujju bi benn tubaab la ah ndaw si moom it mer ba fut xaar ba jëkkër ji ñëw ba reer ba pare ba tëdd bi mu tëddee nag la jël sotti ko benn liquide inflammable maanaam mën na nekk pétrole wala essence ba pare taal ko mais moment bi nga xam ne nag da doon ko sotti jëkkër ji moom affaire dafa takk si loxoom bi muy taal aussi jëkkër ji almet bi flamme bi dafa laalaale loxo yi ba moom dafa jëlee ay gaañu gaañu bi mu defee mbir boobu ba pare nag moom dafa daw léegi jëkkër ji nag bi yuuxu yeeg yooyu ñoom ñoo alerté voisinage bi dëkkandoo yi ba dëkkandoo yi ñëwee fekk ko fa jël ko yóbbu ko hôpital gannaaw si nag dafa mujjee faatu Aïda Mbacke moom bi ko gendarmerie dégloo ba pare bi mu leen nettalee affaire yi nu mu demee ba pare dañ ko jël yóbbu ko si centre bi nga xamee ne moo nekk centre Grand Brûlé yi fële si hôpital fan ndax moom it ñu faj ko ndax loxo yi dafa am ay lakk-lakk xam naa su fa jógee nag dina ñëwaat gendarmerie ñu dégluwaat ko beneen yoon après door ko jàllaleen nag si kanamu procureur may laaj rek nga xam ndaw si li mu def jar na ko ndax kat ay années yu bari ñu ngi koy xaar nga xam ne daf ko war a tëdd kaso